kon ginnaaw bin ñu waxee ni sangoo ñu ko sëñ bi indee jàngale ko ci téere bi ten ñëw ci yenn mbir yoo xam ne euh, lu mat a bàyyi xel la ci kii sango wala kii jàpp sëñ bi indi ko ci téere bi ngir nit ki sangu wala ki jàpp man koo bàyyi xel yooyu bi ci njëkk mooy booy raxas sa kanam na nga moytu jël ndox mi di ko dóor sa kanam waaw raxas sa kanam da ngay jël ndox mi sotti ko ci kaw jëb bi mu wàcc ngay raxas waaye jël ndox mi di ko pes ci kanam gi wala di ko dóor ci kanam gi loolu bokk na ci yin war a moytu ba tey tamit booy raxas sa kanam moytul jël ndox mi di ko sotte ci jëb bi ndax boo ko sottee ci ron jëb bi loolu day tax nga masaa kaw jëb bi te kaw jëb bi da ko war a da ko war a raxas kon moo tax booy sotti ndox mi di raxas sa kanam danga koy sotti ci kaw jëbi jëbi ci kawam nga koy sotti loolu ndox mi di rogalaan di wàcc ngay raxas ba tey tim booy raxas sa kanam amul yenn baati seede yoy tudd da ngay raxas noonu rek waaye jurul ngay wax di tudd baati seede yi waaye wala ngay wax allahu akbar ba tey tamit booy jàpp wala booy sangu boo àggee ci raxas loxo. da nga dem ba weesu conco bi tuuti te bañ caa sori waaw te bañ koo sori euh, ndax yem ci conco bi képp képp dafa jafe moo tax booy sangu wala booy jàpp conco bi da nga koy ëmbaale ba tey tamit booy sangu do jar ngay dindi sab jaaro ñaar jaaro boo takk sa baaraam jaaru baaraam bu fekkee ni jaaro la boo xam ne am nga ci am nga sañ-sañ takku ko ndax bu dee góor ci lislaam sañ to takk lu ëpp benn jaaro ci fiqu Malik boog suñ takk lu ëpp benn jaaro te jaaro bana nekk jaaro xaalis waaye kon góor sañtu takk jaaro boo xam gurus la wala leneen la wala mu weñ gu ñuul wala mu nekk takk lu ëpp benn jaaro kon fekkeen jaaro bi mu takk am na sañ-sañu takk ko ci diine kon donte jaaro bi dafa seere dafa xat ci baaraamam tamit du jar buy sangu mu koy dindi. kon nag bu fekkee ne jaaro la boo xam ne amu ci ndigal te takku ko lu mu day jaaru oor wala xare wala wala bu wurus wala oor wala wurus wala mu nekk lu ëpp benn jaaro kon moom buy sangu faaw mu dindi ko ba tey tim bopp bi boo koy masaa dangay masaa lépp fépp foo xam doon wax ne danga koy masaa nag boo raxasoon dana baax lu mel bi doon wax ne koy masaa kon boo ko raxasoon dana baax ki nga xamee ni karawaram kawaram dafa gudd bay lang Ku mel noonu buy raxas boppam lool di lang ci kawar ga da ko war a raxasaale waaw kon ki nga xamee ni kawaru boppam daa gudd bay lang lool di lang buy raxas kanam kaw bopp bi da ko war a raxasaale ki nga xamee ni yàlla doog mu nekk ab siit jigéen gi nekk ab bu fekkee daa am lum takk ci bopp bi loo xam ne day tax mu am xet gu neex alomi mi daa jël xeeti yam am xet gu neex def ko ci morso ndar takk ko ci bopp bi ngir am xet gu neex ku noonu danañ ko may mu masa ca kaw loola maanaam bu demee bay sangu du jar mu koy dindi danañ ko defar ak jàppandal ci mu mën a masa ci kaw loolu mu def ci bopp bi mooy ci kaw kaang bopp bi te du aayoo muy eh, mu ko mu koy raxas ndax boobaa masa gi rek danañ ko ko may waaye nag kooku moom rek lañ ko defal maanaam séet bi rek lañ ko defal ab jàppandal ci loolu. bu fekkee daa am lum def ci bopp bi lu koy may xet gu neex bu doon sangu ci jamono yi muy seetu mu mën a de ci kaw kaang bopp bi te bañ koo raxas ba tey bu fekkoon ni danga doon masaa fenn bi nga tàmbalee masaa avant ngay àggal masaa gi far sa ndox maanaam ndox mi daal di fendi ndox mi nekkoon sa loxo daal di fendi kon boobaa du jar nga yeesalaat ndox mi maanaam du jar nga ciy sottiwaat ndox mi bees mën ngaa continuer :fra rek daal di masaa ndax mi masaa jubluwuñ ci mu set fi ngay masaa jubluwuñ mu set buñ jubluwuñ mu set dañ naan la da nga koy raxas kon moo tax boo doon masaa fenn lu mel ci bopp wala nopp bi nga commencé laataa ngay pare far ndox mi fenn di du jar ngay jëlaat ndox mu bees di ci waat di continuer masaa ga ba tey booy sangu wala booy jàpp. li feeñ rek li nga xamee man nga cee teg sa loxo moom rek dana sant nag raxas ko waaye kon xóot-xóot yi nga xamee ni lu mel bakkan yi nga koy nga dugal sa ba loxo ci biir bakkan yi baa yu mel noonu loolu santuñu la ko waaw ko maanaam li nga xamee daal mën nga caa àggale sa loxo doo sonn foofu rek ngay raxas kon loolu mooy yenn ci mbir yi nga xam ne suñ bi indi woon na ko ngir laabiire ko kii sangu ki kii jàpp mu mën koo bàyyi xel